alquran nag dafa am lu mu santaane fa ida qudiyat salaatu fantashiru fi l ardi wabtaxu min fadlillah mu jiite jumaa muy loo xam ne nekkut li muy eh, loo doonul rek lu ndax ku xam diggam ak Serigne Saliou Mbacké ndax bokkoon na ci ñi Serigne bi mujj waxal hmm. mu jege woon ko fonk ko lool seereel kàddu bi ne fu ma la gisee damay fàttali sama ndaw kon lii bu fekkoon Serigne Saliou xolam dara ci sedd mi ngi fi sax ndax jóge fi waaye lii mu defaat tey wóor na ma ne ne xolam sedd na ci ndax doyloo woon na ko wóolu woon ko ci lu mel kon bu ko Serigne Sidi Mbacke ak Serigne Cheikh doyloo waatee ci ndigalu Cheikh moom bu mu taxa mu jiite waatu yi loola defar. siyaare itam Cheikh Mouhamadou Bachir Mbacké mu Serigne Saliou mi nga xam ne moo fi teew ci waa kër Serigne ak mboolem mbakkam yëpp mhm. di Serigne Abdou Khadir Mbacké ak Cheikh Mouhamadou Mourtada ak mboolem taalib yëpp yi fi teew kon kàddu yi du gudd santaane ne istajibu lillahi wa li rasuli iza daakum li ma lii nag dund la néegu yàlla la kon ba ko sëriñ Saliou Mbacke naalee moo doonoon lu ko itteel ndax ku ne xam na ne fii ab quartier bu mu fonkoon mu doonoon yitteem loolu itam yàlla def mu ko taalibeem ba sëriñ mu liggéey ko ba àgg bi àggee itam yàlla defal ci tawfeex joo xam ne day mel ne seeral li nga sëriñ Saliou mm-hmm. ndax bi jébbal Serigne Cheikh ak bi mu fiy jógee motul weer wala ñett ay bis kon loolu mel na ne seer la diggam Serigne Saliou <laughs> moom rek dafa amoon dimbal ci sëñ bi lu mu am rek Serigne Saliou ko jox <laughs> lii itam firnde ci bëgg ko Serigne Saliou bëggoon dimbal kon nag ñi ngi nuyu ñëpp ci